ñaar fukk ak juróom ñeent Muusa asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ni ngeen ko war a xame am na juróomi téere ci téereb tawret bi yonent yàlla Musaa bind ci njàng mi weesu lanu jeexal téereb njàlbéen ga ba jàll ci ñaareelu téereb tawret ñu koy woowe gàddaay ga sunu bëggu-bëggu xol ak sunu ñaan ci yàlla mooy mu leeral sunuy xel ak sunuy xol ci lépp li nu nar a jàng ci téere bu neex bii gisoon nanu ba noppi ni ñaareelu téereb tawret tàmbale fi téere bu jëkk bi jeexe maanaam gisoon nanu ni sëti ibrahima isaaxa ak yanqoba sance ca misira fu sore réewum kanaan mi leen yàlla digoon ngir jox leen ko ci saar wu jëkk wi ci téereb gàddaay ga nag jàngoon nanu ne ñi ñooy doomi israel yi àndoon ak yanqoba dem misira te kenn ku nekk yóbbaale waa këram Ruben Simeyon Lewi Yuda Isakar Sabulon Bensamen daan Neftali Gàdd ak Aser ci noonu ñi soq ko ci Yanqoba ñépp juróom ñaar fukki nit lañu fekk doomam ju ñuy wax Yuusufa nekk Misira gannaaw loolu Yuusufa ak doomi baayam ak maasam ñépp dee waaye bànni Israyil di askan wu law te giir di sakkan te yokku te bare ne gàññ ba fees réew ma bi loolu wéyee buur falu ci misira te soppeeku am ndax xamul ku yusufa noonu mu woowaa réew ma ne leen bànni israel ñoo ngi nuy bëgg a mëdd ci bare nanu def pexe ngir ñu bane te yokku lu ko moy bu xare amee dinañu far ak sunuy noon xeex ak nun génn réew mi moo tax waa misra sàkk ay njiiti liggéeykat ngir fitnaal leen ci diisal seen yenn di leen liggéeyloo noonu la bànni israel tabaxale na dëkku dencukaayu dund yi pitom ak ramses waaye lu ñu leen gën a fitnaal ñuy gën di yokku tey law ba waa misra mujj jàq lool noonu ñu soxore bànni israel di leen jaamloo soxore leen ci toskare ji ñu leen di teg ba seen àddina wex leen ñuy muul di tabax di bey ay mbey yu bare nanu taxaw fi tuuti la ko dale ci deewu yuusufa ba fi nu toll ci saar wi lu ëpp ñeenti téeméeri at dox na ci diggante bi gis na du fi beneen firawna bu falu ci misira buur boo xam ne fàtte woon na lépp li yuusufa defaloon waa misira firawna bile fitnaaloon na bànni israel lool def leen ay jaamam cëy ni mu leen liggéeyloo xëy na ci xalaati bànni israel yàlla fàtte woon na li mu digoon seen maam ibrahima ci mbirum ni ñu wara nekke xeet wu bees wu am doole waaye yàlla fàttewul woon dara ci li mu dige woon yàlla dafa doon amal sax li mu dige woon bu yàgg ci dëgg-dëgg yàlla kuy sàmm kóllëre la ku takku la li yàlla dige dina ko def lu mu yéex yéex ci xalaatu nit yàlla mooy ki rabatoon pexe ngir sàkk xeet wu bees wi naroon a jaarale yonent yi ak ramukat bi ci àddina te dara mënul woon a fanq pexeem yéen a ngi fàttaliku ne bi yàlla jëkkee xamle pexeem ngir sàkk xeet wu bees woowu mu ngi tàmbale woon ak ñaari màggat di Ibrahima ak Saara ibrahima bi mu amee téeméeri at ci la juróon isaaxa isaaxa moom jur yankoba te yankoba jur fukki doom ak ñaar ñi sos bànni israel bi ñu toxoo ba sanc misra juróom ñaar fukki nit lañu woon waaye gannaaw ay téeméeri at nekkoon nañu mbooloo mu rëy rëy ndax yàlla defoon na li mu woon bu yàgg ndax yàlla defoon na ci ibrahima xeet wu bees te yaa xakkay yàlla kuy sàmm kóllëre la te mënula tebbeeku moo yelloo ndam ba faw jàng nanu ni na fitnaale bànni israel def leen ay jaamam waaye dañuy gis it ne saa su firaw na fexe noot te wàññi bànni israel yàlla dafa doon def pexe ba ñu sekki tey gën a yokk noonu mbind mi dafa nuy nettali ni na mere lool daldi joxe ndigal ne bépp doom bu bokk ci bànni israel bu juddu tey góor sànni leen ko ca dax ga ngir mu dee lu ngeen ci xalaat kan moo doon jiite na ci pexem mu soxor moomu seytaane la woon lu tax seytaane bëggoon a fitnaal bànni israel te rey leen lii moo tax seytaane dafa xamoon ni yàlla diggee woon yónni ci àddina ramukat bu am doole bi naroona goreel doom aadama yi ci dooley bàkkaar ak safara seytaane xamoon na bu baax it ne ramukat bi nara gane ci àddina ci xeetu israel la waroon a jaar loolo taxoon seytaane xiir raw na muy fitnaal bànni israel ba di leen fexe far sax waaye yàlla mi ëpp doole seytaane fasoon na yéena jëfandikoo kenn ci biir bànni israel ngir mu gorel leen ci loxoy firawna ndax xam nga turu jàmbar jooju mooy muusa yonent yàlla muusa léegi nag nanu jàll ci ñaareelu saar wi ngir gis ci yan anam la yonent yàlla muusa juddoo mbind mi nee booba jenn waay ci giiru lewi lewi moo doon ñetteelu doomu yanqoba lewi moomu nag takk janq bu mu bokkal askan ndaw sa ëmb jur doom ju góor waaye bi mu gisee taar bi liir bi àndal mu daldi koy nëbb lu mat ñetti weer bi mu ko mënatula nëbb nag mu wut pañe bu ñu ràbbe barax fate ko godorong tey ko ak ndàbb noonu mu yab ca liir ba dem dugal ko ca barax ya ca tefesu dex ga ñuy wax niil te booba mag ju jigéenu liir ba dànd ko di xool ba xam nu muy mujje noonu doomu na ju jigéen ñëw sangu si ci dexu niil gi te àndandoom ya di doxantu ca tefes ga booba nag mu gis pañe ba ca biir barax ya daldi yónni jaamam mu jëli ko mu ubbi ko gis liir bu góor ba fekk muy jooy ba yaramam daw ci mu ne kii de ci doomi ebraan yi la ebraan mooy tur wi waa misra tudde woon bànni israel magu liir ba moom mi nëbbu woon ca biir barax ya jege si doomu na ne ko ndax ma dem wutal la ku ko nàmpal ci jabari ebran yi doomu na ne ko demal xale ba dem wooyaayu liir ba noonu doomu na ne ko yóbbul xale bi te nàmpalal ma ko ma fay la jigéen ja jël liir ba nag di ko nàmpal ba mu màggee mu yot ko doomu na mu def ko ni doomam tudde ko musa naan ndax li ma ko jële ca ndox ma kon loolu mooy nettalib juddub musa yàlla doon na jooloxoom ci lépp lu xewoon ci dundu muusa ndaxte yàlla dafa ko fasoon yéene jëfandikoo ngir mu goreel bànni israel ci firaw na xelum yàlla mi ni mu xóote ba raw xelum seytaane ak xelum nit ndax xam ngeen fu muusa màgge mu ngi màgge ci kër firaw na mi nga xam ne moo doon fitnaal xeetu israel waaye yàlla fasoon na yéene jëfandikoo muusa ngir goreel bànni israel ci loxoy na yàlla ci pexeem tànn na jëfandikoo doom ju jigéen ju buur bu soxor bi ngir aar muusa te yar ko ndaxte yàlla xamoon na ne këru buur bi moo doon bërëb bi gëna a wóor te gën baax ci muusa te it yàlla xamoon na ne dafa amoon lu bare lu muusa waroon a jàng te xam ko ngir mu jekk ba mën a jiite bànni israel noonu mbind mi nee na muusa nag di ku yewu ci xam-xamu waa misra bépp di jàmbaar ci wax ak jëf naka noonu bi muusa màggee am bés mu génn di doxant ci mbokkam ibraan yi te mu gis yen bu metti bi ñu leen doon teg noonu mu gis waayu misra di dóor kenn ci mbokki ebran yi musa geestu wet gu nekk gisul kenn mu rey waayu misra ji suul ko ca ëllëg sa mu génnaat gis ñaari ebran yuy xeex musa dal ni ki tooñ lu tax ngay dóor sa moroom mu tontu ko ne ku la fal njiit ak àttekat ci sunu kaw ndax danga ma bëgg a rey ni nga defe woon waayu misra ji démb musa daldi ragal ne ci lu wóor mbir mi dafa feeñ naka la na dégg mbir mi nag muy wuta rey musa musa réer na dem dëkk ca réewum majaan kon nag gis nanu musa ci ndoorteli ni mu fexe woon musal bànni israel ci dooley boppam wante yàlla bëggul woon mu deme noonu li yàlla bëggoon mooy mu jëfandikoo musa nib jumtukaay ngir goreel bànni israel muccuk israel du jóge ci musa wante ci yàlla musa ci boppam nit kese la woon te amul woon jenn doole ngir goreel bànni israel ci loxoy buuru misra su fekkee ne yàlla mayu ko ko naka noonu mbind mi daf nuy nettali ne diirub ñeent fukki at musa nekkoon na ci réewu majan foofu ci màndig mu tàng te wow mooma yàlla amoon na lu bare lu mu waroon a jàngal musa am na fu ñu bind ci kàddu yàlla ne nit ku màndu ci yëf yu néew dina màndu itam ci yu bare ku jubadi ci yëf yu néew du jub ci yu bare laata yàlla doon mën a dénk musa sas wu diis maanaam sàmm mbooloom israel faw muusa jëkkoona wone takkuteem ci sas yu néew naka noonu mbind mi dafa nuy nettali ne foofa ci réew mu sore misra musa daldi nekk ab sàmm sëy ba am ñaari doom diirub ñeent fukki at musa sàmm bu takku la woon nag foofa ca màndig ma fa musa doon sàmme géttu goroom yàlla doon na waajal musa ci bés bi mu wara sàmm xeetu israel noonu mbind mi na ba ñu ca tegee ay at buuru misra dee waaye ba tey bànne israel doon toskare ndax njaam gi bay ñaan wall wall gi ñu ñaan ci seen biir njaam àgg na ba ca yàlla yàlla daldi dégg nag seeni binni fàttaleku kóllëre gi mu fasoon ak ibrahima ak isaaxa ak yanqooba yàlla daldi leen nemmeeku ba yërëm leen bànni israel yàggoon nañu lool ci seenug njaam diirub ñeenti téeméeri at waa misra lakka leen waaye yàlla fàttewu leen yàlla fasoon na yéene goreel bànni israel ci seen njaam lu tax yàlla fasoon yéene musal bànni israel ci loxoy na ndax jóg gënoon a baax ñeneen ñi déedéet bànni israel ay bàkkaarkat lañu woon ni waa misra ni nit ñépp sax lu taxoon nag yàlla am ay yéene yu neex ci doomi israel lii rekk a taxoon ndax yërmandeem ak takku nanu jàngat li nu jàngoon ci aaye bu mujj bi mbind mi nee na yàlla daldi dégg nag seeni binni fàttaliku kóolëreem gi mu fasoon ak ibrahima ak isaaxa ak yankoba yàlla daldi leen nemmeeku ba yërëm leen waaw yàlla ci yërmandeem ak takkuteem fàttaliku woon na gi mu fasoon ak ibrahima bu yàgg ba mu ko naan dina def ci yow xeet wu yaa dinga nekk buntu barke te xeeti àddina yépp dinañu barkeelu ci yow saw askan dina nekk ay doxandéem ci réew mi ñu moomul ñu def leeni jaam lakkal leen diirub ñeenti téeméeri at waaye réew moomu leen di defi jaam dina leen àtte bu loolu amee nag saw askan dina ca génn ak alal ju bare ci njàng mi di ñëw nag bu soobee borom bi dina nu gis ni yàlla feeñoo musa woo ko ba yebal ko misira ngir goreel bànni israel ci seen buumi njaam ni mu ko dige woon ibrahima bu yàgg kon mbokk yi fii lanu war a yem tey su fekkee ne am ngeen lu ngeen laaj ci lu nu jàng tey bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis kon ba beneen yoon yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li mbind mu sell mi wax bi mu naan sunu ko ñàkkee kóllëre yàlla moom dina sax ci kóllëreem ndax mënula di boppam